waaw mais jot ma ñëw yow ci làmbu démb yi combat yi amoon dimanche te Gaston production tëggoon ko ma jëkkee yow ci Doudou Sané ak booy Melax. waaw Doudou Sané Boy Melax combat yi euh, combat Doudou Melax moom Doudou Sané yaakaar naa booy Melax li ko ci dugal mooy Doudou Sané defe naa ab Diop la nu ko joxoon. combat ba yàqu. ñu jox ko booy Melax booy Melax jël ko mais nag wuute na nag wax yàlla Doudou Sané ko ëpp compétition moo ko doole. c'est que booy melax de di guerrier rek aussi ñu fay ko yenn prix yi ci quinze jours muy liggéey da koy jël te aussi mber da ngay am fit parce que lam nag ñu lay ñu lay jox combat nga ngay xiin xiini ci avance boo xam ne mat na million nangam ci loo xam ne matut matut vingt jours wax day yàlla jël ko moo gën parce que moom di nga jël combat koo xam ne foog nga ne yaa ko man mu daan la léeg nga gis ku loo ponkol jaar ca dem dem fu la neex parce que du saane moom daan na booy melex moom day booy melex lay doonaat rek duut saane la booy melex daan mooy wàccee mooy wàccee duut saane. mais duut sa booy melex tamit est-ce que ni mu bëree noonu la war a bëri. Aliou Sow rek nga dóor rek. Mm. jàngatoo dafa war au moins moom am njool la. ah bu doon ni maa yor. du ma dem. da ngay déplacer di ko tuuse ni mu ko mënoon a gaañee mën naa déplacer tuuse ko mu gaañu naaj naaj ñuy faj du ñu ko mën a faj mu ñu jox ko victoire loolu la mën a am biir combat bi moom xam nga ne pour mu daan kay moom kon pour mu daan kay ci bëre bi day jafe day jafe. Serigne Ndiaye numéro 2 boobu combat tam noo ko jàngat. combat boobu day moom neex na ñoom ñëpp sama ay booy lañu Serigne Ndiaye numéro 2 Medina la dëkk maa ngi koy féliciter. parce que ñoo bokk 1000 pour cent bi mu am ndam lu rëy ma koy félicité di félicité waa Medina yëpp ci jàppale gi nu ko jàppale ak it taxaw gi nu ko taxaw parce que nag champion la de bu ko gars yi nangoo jël ah, léegi ñun wax Medina roi des arènes gi kay ci mook mook tafaatin moom dina mën naa gaaw ci ñoom lool de. roi des arènes gaaw ci ñoom. warul warul leen a mën a rëcc ñoom ñëpp ko war a doon. Serigne Ndiaye loo gis ci moom ba yaakaar ne roi des arènes. parce que nag ponkal la ba noppi dafa jàng bëre ba mën a bëre jàng xeex ñeme entraînement gëm mbër gi doomu doomu séeréer ak Medina ak bawol bawol te fépp làmb la. ni mu bëree. parce que boo xool dafa dama dafa ñëw ci plateau bi ma ne ko ni nga bëree mu ne kat yi daf daf ne woon ko xeexel ak Eumeu Sène benn loxo yàgg yàgg day ñëw. mais am na combat yoo xamante ne nii ci ngay wane sa bopp. bu fekkee ni dañu laa favoriser ne la yaa mën xel yëpp jëm te ne yaa mën boo dikkee da ngay accélérer bëre daan jóg fa. mais loo fa nekk di sikki sàkka ki mu doon bëre dafa mën a bëre de te dafa ñeme te neewut doole. boo xoolee compétition mbapat bi rek la ko kee daane. parce que Eumeu seen li ko li ko yàqal dafa foogoon ne waa ji day bëre mu tëj bëre bi xeex ak moom bi mu essayé xeex bi baaxut mu daw songi ko fekk kii xaar na ko fa waaw parce que da ko song waa ji nguufaan ko leen rek lépp leen a tax rek parce que song mi waaju ko waa ji da koo pressing tëj ko ci saako yi force nga génn wala nga ñëw te saa yoo génnee ji daa génn te saa yoo jaasi seen see jaa ngi dagg mu ngi dal waaw te avance ba lépp nga fa te boo waree daanu moom daanu boole ñu dagg sa moom dem bëre ji loo am jël moo gën. mais moom nu mu waroon na bëreeg Serigne Ndiaye Eumeu Sène Junior. Eumeu Sène li mu war na bëreeg Serigne Ndiaye mooy hmm? arbit ne për mu mu mu tafu ci goos bi non droite la mu tafu ci droite bi xool gauche bi mu koy dóor mu ses foofu dox dox xool kurpeñ bi mu koy dóore noonu heure bu jógee ci la koy mën a songe. boo ko songee jéem a tafu ci wet gi profito bëre balaa jàpp. xanaa mu jege ko. mooy teg teg ko sog tafu ci côté bi xool ko boo koy song du defee du la gis mais moom waa ji da koo da da koo ci kawam topp ko ba noppi pressing ko ba noppi contrôlé ko pour que maa ngi koy taru heure bu nee bërit ma ma ne ko nirim te loolu it boo xamee bëre da ngay xam ne daa yomb yow mi nekk fee jëm si ci sama tànk yi bu ma amee reflex yi maanaam mënoo ma ci njëkk boo ne yorom damay wàcc donc jàpp faw nga tuuse ko soog ko song wala nga xool ko ci biir xeex bi song ko mais moom dafa jékki del si rek xàcci dikk dugg fekk waa ji mu ngi ko bëgg mu ngi koy mbaar foofu waaw. Serigne Ndiaye moom am na erreur ci bëre bi wala. Serigne Ndiaye defut benn erreur parce que yàkkamtiwul bëre bi mu ngi avancé ci kawam di ko xeex benn benn di ko taru. looloo tax deful benn erreur combat ba daal boo bëggee dégg-dégg Serigne Ndiaye xaw naa op sa doole op ko compétition ba noppi dik forcé ko xaw ko de ko pressing teg ko pression jaxase ko sa balaa balaa réfléchir nag def na erreur mu daan ko mais sax doole ji moom xam naa ne bëriwut mais ni mu bërek moom moo moo ko xaw a gëlëmal waaw. maanaam mbër saa yu nu doxee sa kaw ñaare amato mille chance pour gagner. bu ñu la njëkkee jóg. bu la pressing la ngay dindi man loolu laa bëggul ci sama mber parce que Eumeu Sène la mu doon def sottalut bëre bi. la muy def mooy ñu dagg sa xaalis. gaay xalaat na yow mii dangaa ñemewut waa ji te du tee nga daanu parce que fu mu dikkee loolu lay defaat te tànk mu ngi la topp boo ko songee mu jàpp la. bu dawut lu day raam rek saa yooyu ñëw mu jóg dogale la jàpp la. Forza Franc. Forza Franc Forza Franc moom leen la ko Franc daane rapidité. daf ko gën gaaw gën a gaaw te Franc li mu war a bëre la bëre parce que Forza calculer wut woon ka Franc ni mu ni ni mais Franc ñun ñi ko xam danoo xam ne. fa mu jàng ka mu ka ko jàngal bëre muy Moussa Dioum kooka bëreem bu la jàngalee bëre rek il faut nga gaaw ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal yàlla xari ko ci àjjana sunu rakk la sunu lépp waaw di ñaanal sama papa Issa it mi di bàyyi Moussa Dioum yàlla yàggal ko fi parce que sama rakku papa la waaw mais Fra Fra Fra dafa am dafa wax yàlla dafa am rapidité xeex rapidité bëre surtout xeex bi. dañu doon wax Forza xeex sax mais Forza mujjul xeex. daa déclenché une deux waa ji daw jàpp ko. daa déclenché. daa déclenché Fra dajeeg moom roose góor gauche droite mu sigi mu deb ko sol añ ko. bi mu ko añee sawaay dem ba poids bi boo xam ne ba mu daar ci añ bi xalaat ne de koy kii mu wàcc basat ko bi mu ko basatee rëpp ak moom dal di wàcc ci bopp taf la bëreeg moom du question doole parce que bu doonoon doole la ba mu ko solee buub ko noonu day dem mais daf ko sol takk ko mu diis mu arrière basat ko daf ko yëngal mu yëngu mu commencé bëre loolu la bëreeg moom looloo tax force a ñàkk waaye doole ju bëri la yor. mais force amul erreur ci ni mu bëree ak moom est-ce que euh, euh, noonu la waroon bëree ak force su ci côté xeex bi. mais force nag noonu rek la mën a bëre parce que xeex bi rek. moo ko ciy génne parce que bu kee nag dafa gaaw te am doole fara forme bi mu yor nii amul ci Sénégal ba mu daj mbër bu ko ci yor ah. billaay wallaay wal asim la ko wax Franc du benn mbër bu yor forme bi mu yor nii parce que man dama xam ña koy ña mu àndat di entraîner ak ña koy entraîner te xam ko moom parce que Papa Sow da ngay xam ne ñi dàq bëre ci Sénégal la ñi gën a ñeme entraînement te xam yoonu entrainement Papa Sow ci la bokk Modou Lo ñi gën a ñeme entraînement te xam yoonu entraînement boxe ak bëre ak physique Modou Lo ci la bokk Balla Diouf loolu nga xool njuga ja ay fasman la nu ñoom yaa xam foo wuti say weñ andi poids bu dul jeex nu la physique loo ba li nga bëgg rapidité boo bëgg a am di nga ko am parce que boo xoolee sàlloo ci lay xool franc mooy rapidité taf taf nga résumé borom bëre li ngay bëre dem sa yoon. ñooñu seen bëre yàgg daal. non parce que dafa liggéey ba diis ba am poids ba am poids physique physique physique ba am rapidité bu wóor. boo xam ne lépp ci ay ay seconde la koy def boo amul réflexe pour nga break moom day jafe il faut say say yaram automatisme bi normal normal nga soog a break moom te it nga bari doole parce que day xeex di bëre te gaaw day fàq di plaqué di basat di def lépp man kay maa wax li wax dëgg yàlla. daanoo gul de ci douze victoire franc. na gaaw def na gaaw te njëkkante la. tar tarfatil ay ni boo ko defee mën ngaa gaañu ci combat bi mën nañu laa door nga daanu mën nañu laa door plaqué la loolu tax Franc li ñu ko bëre la lu baax la moom dafa mën a bëre waaw. moom fan la jëm. ah Franc gars yi na bëri nu fi de Franc ak Gris 2. combat combat combat nag. Franc ah, léegi kan nga bëgg mu bëreet. waxul loolu dem ah mais lu mu lu mu lu mu wax. Franc kay waaw Gris ah, loolu bu neexee wax ko xam nga comme nee nañu boo bëggee am ci ñi ci suuf da ngay laaj ca kaw xam nga gis nga ñoom euh, armée yi nag booy ak ñoom buur si te dégg nga mën a Gris 2 laa bëgg façon yooyu la rek. <laughs> daal yow fekk gi ah, ah, ci man. moo gën a ci Tapha Tine de wala Gris Bordeaux bu dee ci Medina bii nu nekk mënu ci bëre kenn te bërewul ak ñooñu bërewul ak kooku. maanaam yéen waa Medina daal tey Gris bo Gris 2 ngeen ko tegal. non ma bu dee ci Tapha Tine la xelam jëm. moo ko wax kay. waaw mais xam na kii mu war a dem bañ ko ne léegi foo jëm. loolu la wax. Gris Bordeaux la njëkk loolu mën na ko wax. xam nga Franc tey man mii di wax ak yow hmm? sama booy la ñoom ñëpp maa leen yar Franc Timtimol Yaahu Dial Pape Diop numéro 2 Gaal Ndiaye Giri 2 ah euh, kii nu mu tudd Moussa Dioum numéro 2 Ibou Ndiaye Diof yor ñooñu ñëpp xam nga Moussa Dioum maa ko ba mu fermé écrit écrit parcelle boo xoolee yanda yanda maako fa andi maa ko wutal licence jox ko mbay cuun xam nga yaahu jaal maako joxon joxoon mbay cuun jox ko Moussa Dioum cim ci mool écrit ba man maa ko joxoon ñëpp mbay cuun xam nga kooku moom sa sa sa booy la sa sa booy la papa Sow mago yor sama booy la dañuy déggante xam nga Modou Lo booy bu baax la wax dëgg yàlla euh, wax dëgg yàlla man am naa kii bu ma am ci moom parce que dëju Moussa Dioum bi damaa gis nu mu ci taxawee parce que Moussa daa gaañu mu taxaw dem ànd ak moom ba Touba hmm? bi mu ñibsee mu ñibsi dikkaat ca kër ga ànd ak délégation dëj bi mu ñëwaat ànd ak ay mbokkam ak yëpp ñu dar ko man man la waxat wax digganteem ak Moussa te ma xam ko xam nga kooku tey dem na ba waa dëgg yàlla ñu bëri bog ko ci loolu ngi ci reefan ngir sesti boo mu def te fekk na bari na fa ay supporters waa dëgg yàlla parce que man sama doom ñi ma yor ni yëpp ah yàlla dal ma cee nettu ñoom ñëpp Modou loo la ñu faral ñoom ñoom dama doon xuloog moo dama doon xuloog ñoom damay dikk fekk sama néeg ñu taaf ci photo yi Modou Lo ma leen yéen man may kii tafaatin ñoo am na sama doom boobu del ma muj nel ma boo doon bo rek Modou Lo moom laay faral <laughs> xam nga kon fara comme ñooñu ñëpp ñoom la àndat sa ay nit la nu du ma daanaka moo giri de ñoo yem ci man sama ay nit lanu nu de sax ñoo dekk waaye man relation bi ma am ak fara bu dee wax dëgg wax dëgg ca la aw ma ko giri parce que giri de jàpp naa ne rek Medina la dekk fi la juddu sama kanam moo bor doo ñoo bokk ndey ak baay Gris sama booy la yàgg nañu Gris xamante na maag moom mu nekk sama xarit yaayam nekk sama xarit Awa Jon Nafi Jon Assane Jon seen famille ñu bëri dañoo foog ne ca laa bokk parce que dañu mën a da nga niroog Gris loolu am mais rakkam yi bëgg ma ama sama xarit lañu mais heure bi ma fay nekk noonu di fa ñëw Gris di entraîner noonu boobu Gris de nexu fi boobu xele la mu nga daara ja Gris de xale bu tuuti la bi papa Sow di bëre ak Xaadim uh, Gadiaga ci la ko yaayam ngab ni fekk nu kër Pape Faye naa Pape Faye kii yow yow dong lay supporter mu nekk xale bu tuuti yàggul dara mu dem daara ja bi gi bëreek Bombardier ci la jógee daara ja wàcc ñëw Fass Touré nga kon li ñu toog moo bëriwut mais xam naa yaram xam naa baaxaayam looloo tax ma aussi mu nekk Medina nag mu dekk Medina te am benn defet te it moo Franc parce que Franc Reug Reug la daan soog dem ci kaw noonu bu Sa Thiès moom na daan Gris 2 bu fexe bëreeg Sa Thiès bu daanee Sa Thiès Tapha Tine ngi fi ah waaw man <laughs> nga jaar foofu de mënoo naaw rek tëb ci kaw dal dal ci kaw kooku moom mënul nekk waaye nag comme Medina la tafatin dëkk fi la giri dëkk mille pour cent am médina boo daanee mberde ngay joxoñaat fa ñu nexoon rek foofa nga ñoo loola ngay wax rek pour que nga am promotion am bës waaw mais moom champion la bu yàkkamtiwut kenn dina break yow te it mën naa nekk roi des arènes fii maa la wax loolu loolu leer kontaan ci ok